sayyidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi zawi ridwan wa tamkin mbokki daayira sifa usudur seen mbokkum taalibi Modou Thiaré sifa usudur fii ci Touba membre sifa usudur moo leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu ak di leen baal ak di ñaan yàlla sun borom subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal sunu aq yi dox sunu diggante ak moom ak yu dox sunu diggante ak sunu morom jàmm di rafetlu programme daara ji bu baax ci ni muy doxee di ñaan yàlla mu nangul ñu liggéey bi te la xam ni ko fi yàq égul ma ñun ñëpp ñu am ci ngërëmul sëriñ bi niñ leen ko waxee léegi rek fas yéene dellusiwaat ak yéen comme niñ ko baaxoo defee dimanche bi jot saa bu ñu tànnee te mu waxtaan ci xasida yi ñu baaxoo ci ànd ak yéen di ci fàttalante di ci laabiirewante ci ngëneel yi nga xam ne suñ boroom defal na ko sëriñ bi ci xasida yi te bi waxal ko boppam digle ñu jàng ko wax ñu njëriñ yu ci nekk kon dafay jaar saa su nekk ñu di ci fàttalante ngir ñi nga xam ne ñoo ci soobu ñu gën a xam wan yoon dañ ci mën a jaaree ba mën caa jëriñu dëgg-dëgg incha allah su ko defee nag xasida yi ci seen jëmmi bopp dañoo am wàcce waay wu rëy ci liggéeyub sëriñ Tuuba ndax ku ne xam na ne sëriñ bi ci la doon liggéeyal yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ko doon liggéeyal lépp yeesal diine ji yeesal sunna di ci yar taalibe yi loolu lépp ci xasida yi la ko doon defee xasida yi sax moo tax mu am maqaamam xaadimu rasul kon loolu dafay wane ne xasida yi moom lu màgg la lu màgg la ci yàlla lu mag la ci yonente bi lu màgg la ci sëriñ bi nga xam ne moo ko doon bind waaye lu màgg la ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla màggal ñépp dañu xam dayub mbind xam dayub mbindum sëriñ bi su ko defee euh, sëriñ bi dafa waxoon ne suñu boroom subhaanahu wa feeñal na ci xasidam yi ak njub suñu boroom feeñal na ci xasida yi ak njub ba tax na képp koo xam ne yaa ngi sàkku ak njub di ko sàkku ci sama xasida yi loolee ngay sàkku sunu boroom subhanahu wa taala dana la ko defal mooy li muy wax ne abda bitaali fi ilahi al huda wa kullu man raama hudahu bi kon loolu waxi sëriñ bi te yaakaar naa ne ñun ñëpp ak njub moom lañuy sàkku njub mooy tege ci yoonu siraatal mustaqim tënku ci ndigalu sunu boroom yi taxaw ci temm te di ko jëfee lépp lum tere moom sunu borom nga moytandiku ko ba doo ko jege kenn du la ci seen te loole nag sëriñ bi dana xasida yi da koy def sëriñ bi it wax ne iblis de daw na jëm ci kudul man waaye ci sama xasida yi ci la murid bi di gindeekoo kon ginaaw bi nga xamee ne iblis moom du jege sëriñ bi mukk du jege lu jege sëriñ bi mooy du jege xasida yi waaye sëriñ bi it nee na ci xasaayidam yi kat ci la murid bi di ginde ko mooy li muy wax ne haraba min sinriya iblis al marid wa bi xasaayidiya yaxtadil murid kon murid bi saa bu bëggee ginde faw day nekk koo xam ne day nangoo jàng xasiday Sëñ Tuubaa euh, su ko defee nag dama koy faral di wax lu bare bari ci taxawaayu xasida yi ak seeni màggaay nga xam ne damay faral di wax ne xasida yi kat dañoo taxaw ay taxawaayu jëmmi sëriñ Tuuba mi nga xam ne moo leen bind dafay mel ni li nga xamee ne noonu la sëriñ bi doon defaree ñi nga xam ne ñoo jamonoonte woon ak ñoom ba ñu nekk ay nit yu defaru biir ak biti bay defaree ba képp kuñ taxool defar la te dootoo yàqu noonee la xasida yi di defaree ñi nga xam ne ñoo taxoog ñoom di leen jàng boole ko di sellal dina indi ay bayit yoo xam ne day tegtale ne xasida yi dañoo taxaw taxawaayu jëmmi sëñ Tuuba yor dooli sëñ Tuuba te loolu kon war naa tax ñun ñëpp ñu gën góor góorlu xam ne dafa bokk ci lu ñu sëriñ bi faggul bàyyee ñu ko fi ñu war koo sàmm war koo aar war cee sàkku njëriñul àdduna ak njëriñul àllaxira sëriñ bi dafa wax ne suñ boroom subhaanahu wa taala moo ko tànn bi ko tànnee wàccee ko ci kaw suuf def ko mu nekk jëwrinu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam euh, ba noppi xamal ko mbindeef yi maanaam yàlla ko wàccee ci kaw suuf euh, def ko muy liggéeykatu bi yonente bi sallallahu alayhi wa waaye ànd ak lépp suñu boroom ci boppam xamal ko mbindeef yi moo tax mu wax ni nazaani min waral baax xadim allamahum bi annanil abdul xadim sun boroom mi nga xam ne mooy albaaxi mooy ki fi des ba faw taw du fi mës a jóge mooma tànn mooma nocci mooma tànn def ma may liggéeykatu yonente bi doon jaamub yàlla doon liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ànd ak lépp moom moo ko xamal bindee fi kon sëriñ bi moom jaamub yàlla la ak liggéeykatu yonente bi sallallahu taala alayhi su ko defee kon lu muy jàngee foofu mooy sëriñ bi moom nee na moom abdullahi wa xadimu la day jaamu yàlla di liggéeyal yonente bi waaye xasida yi itam ay jaamu yàlla lan waaye ay liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañu moom xasaayid mooy lu sëriñ bi wax ne xasaayidi taabudu rabbiya shakur wa annaha taxdimu abdahu shakur nee na ni ma nekkee jaamu bi yàlla man sëñ Tuuba nekkee ko jëwrinu yonente bi di ko liggéeyal sama xasaayit yi tamit noonu la ñuy jaamoo yàlla noone la ñuy liggéeyalee yonente bi sallallahu taala alayhi wa kon nag day mel ni ki nga xam ne moo wecceeku benn xasida nit ki saa bu wecceekoo xasida gi rek la ko tàmbalee ci bés boobu lépp lu xasida gi jaamooti yàlla ak lépp lum liggéeyalati yonente bi dañuy jël tiyaaba jooje def ko ci say jëf loolu war naa tax ñu gën a góorgóorlu bu baax baax baax ndax wolof day faral di wax ne ginaar ak i cuucam lépp boroom ginaar yaa ko moom kon saa ba wécce ko xamal ne ko tàmbalee ci bés boobu lépp lu xas xasida ki jaamu yàlla liggéeyal ko yonente bi loolu lépp dañ koy jël yow mi ko moom defal la ko ci say tiyaaba ba tey ñoo ngi woon ak yéen ci taxawaay yi nga xam ne noonu taxawaay yi nga xam ne xasida yi taxawee nga xamante ne noonu la noonu la xasida yi taxawee taxawaayu jëmmi sëñ Tuuba ndax foofu sëñ bi xam xamle na ne jaamub yàlla la ak liggéeykat yonent bi waaye mu xamle ne it xasida yi dañuy jaamu yàlla di liggéeyal yonent bi kon loolu xasida yeeg sëñ bi ñoo ko bokk nekk ba tey sëriñ bi wax na ne ci xasida muxaddamatul kubra waj'alni bi jaahihi rashidan wa murshidan yow yàlla nang ma def ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa ma nekk rashid gannaaw ba ma ko nekkee ba noppi nag euh, ma nekk it ab mursid rachid nag mooy koo xam ne dafa jub xocc tege ci yoonu siraatal mustaqim nga xam ne du ko wàcc benn yoon soo ko defee nag ngay soog a mën a jubal jubal mbindeef yi da teg ci yoonu siraatal mustaqim ndax dañuy faral di wax ne faaqidu shay'in laa yu'tihi nit ki lu mu amul du ko mën a joxe waaye ginnaaw bu nekkee rachid ba noppi nekk mursid te loolu ku ne gis na ko na mu doon defaree nit ñi bindi bàyyi fi loo xam ne ba léegi nit ñi ñu ngi koy jàng di ci jëriñu te mooy xasida yi ñuy waxtaane kon sëriñ bi moom nekkam ak mursid kenn sikki sàkkawu ko waaye noonu it la waxee ne wajhal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida foofu it dafa ñaan yàlla sunu boroom ne defal ma samay wax jublu ci nag samay xasida xasida yi ay waxi sëñ Tuubaa la xasida yi dañoo bari ay tur sëriñ bi daan na wax kitaabati yi daan na wax makaatibi xuruufi axlaami loolu lépp jublu ci xasida yi kon fii dafa wax ne yàlla defal mu sama xasida yi ñu taxaw taxawaayu rachid taxaw taxawaayu mursid xam ne xasida yi dañuy wan nit ñi yoon wu baax dañuy won nit ñi yoonu siraatal mustaqim nit ki saabu nekkee ci xasida yi di góorgóorlu tey sellal ku ko gis rek day xam ne kii am na lu nekk ci moom am na lu mu taxool donte yow mu ci nekk sax yëguloo ko wala xamuloo ko waaye ku la gis xam ne yaa ngi dox jëm ci yàlla suñ borom sëriñ bi moo taxoon sax mu wax ne xasida kat dañuy yeggale nit ki ci yàlla sun borom ci lu muy dugg ay xalwa di fanaane wet di fanaane wirdu di jëm ci àll bi di fa yëndu di xiif ak amar loolu lépp du la ci fekk jàppal ba sellu sol sa yére yu laab toog ci barab bu laab jël sa génn xasida jàng ko mu eggal la ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala moo xam nga yëg ko walla nga ñàkk koo yëg mu dem sax ba wax ne xasida day yeggali nit ki ko bëgg ci yàlla sunu borom ci lu dul ngay dugg xalwa maanaam sopp xasida day eggale nit ki ci yàlla ci lu dul muy nekk fii di dugg ay xolwa di yendu ci àll bi di fanaane ay xëy di jaamu yàlla bëggal mbindum sëñ Tuubaa rek egg ci yàlla suñu borom ndax xam ngeen ne bëgg mbokk yi lu am solo la bëgg moo tax nit ki nit ki saa buy bëgg na bëgg lu baax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam am na ku mos a ñëw ci moom ne ko yaa rasulullah إني أحب هذه السورة al-Ikhlaas yow yonente bi sallallahu alayhi wa man de sooratul Ikhlaas moom dama ko bëgg lool yonente bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam fa inna xubbaka adxalaka aljanna bëgg gi nga bëgg sooratul Ikhlaas dugal na la aljanna kon bëgg lu am solo la waaye nit ki saa buy bëgg na bëgg lu baax kon bëgg xasida it day day day day day day nit ki ci yàlla te nit ki saa bu eggee ci yàlla am ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla nag soo ko amee moom moo gën a kawi sax aljanna ndax wa ridwaanu minallaahi akbar ba ci alxuraan ba kon mbokk yi jàng xasida lu am solo la waaye ba tey ñoo ngi woon ak yéen ci xasida yi ni ñu taxawee taxawaayu jëmmi sëriñ bi ci mbiri taalibe yi ginnaaw ñaari bayit yooyu ma fi indi sëriñ bi it am na fu mu wax ni waliyahab kauni ka kulli mursali wajal hurufi ka fi'ali rusuli yo sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma sama gi nek mu taxaw ma bo ma yoni ma taxawu taxawaayam ci mbiri jaam yi nga xam ne la fi andi woon yonente yi rek moo fi andi sëriñ bi na nga xamante ne noonu la yonente yi daan def mooy di woote di jëme ci yàlla loolu la sëriñ bi doon def doon ko defee ci ña doon digal doon ko defee ci yàlla mi nga xam ne moo digaloon yonante yi ñuy woote di jëme ci yàlla sëriñ bi da ko doon defee ci ndigalul seen borom ndax wax na ne daxat nii ilal xatti li ajli lizi li xaada ajran wa asanfa xaada li sadriyal alimul kutuba bi xarqi aadatin waxaala liktuba waxala lig tuba kon yalla mom moko ko ko mu taxaw nak taxaway bu yonente bu xam ñepp gis nañ ko moo tax it mu wax ne yo yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma sama xasida yi ñom tamit ñu taxaw taxawaayu bépp yonente ma sa yoni kitabati ككل مرسل yaa man wahabta li ujura rusuli kon nag sëriñ bi taxawaay boobu mu taxawoon taxawaay yonente xasida yi taxawaay boobu lañ am sëriñ bi nu mu nekkee woon rachid nekk mursid xasida yi noonu lañu nekkee ay rachid nekk ay mursid sëriñ bi na mu doon jaamoo yàlla doon ko liggéeyale bi xasida yi noonu lañuy jaamoo yàlla noonu lañuy liggéeyale yonente bi kon xasida dafay mel ni ñoom ay jëmmi sëriñ bi la jéglu am na fi sëriñ bi wax ni yaa man jaxalta liya kulla mi fawqa salaatin xubilat wa sawmi yow yàlla mi nga xam ne yaa ma defal ci sag coobare ci sag mbaax sama benn fan bu nekk man Serigne Touba mu kawe julli guñ nangu kawe it koor guñ nangu yaa man jaxalta liya kulla yawmi fawqa salaatin xubilat wa sawmi mu mel ni kuy waxanteeg sunu borom sunu borom ne ko waaw mu ne ko wajaxal kitaabati wajal kitaabatiya min zal yawmi fawqa salaatin qubilat wa sawmi ni nga ma defalee sama benn fan mu kawee julli guñ nangu ak koor guñ nangu dama bëgg it xasaayit yi may bind nga defal ma leen ñu kawe julli guñ nangu ak koor guñ nangu kon loolu day wane màggaayu xasida yi tomb boobu lañ doon andi ngir ñu xam ne xasida yi dañoo taxaw ay taxawaayu jëm ñi sëriñ bi leen bind euh, dama jëlali xasida yi waaye sëriñ bi daa jim doon bindee xasida yi ak xalima yi rek da caa wax wax ju rëy lool wax yi yo xamne soko degge déggee di nga xamne khassida yi mom lamu lambo ci ay ngeenel ak xéte yu ken xamul ni mu toll lolou moy lan moy li sëriñ bi wax ne euh faaxat ladallahi axlaami lati khadamat أعمال من جاهدوا وكل من عبده سيد بدا فخني خليما خليما يمدون بني خليما يمدون بندي خليما موم لا وخني مو غينا كاوي تي يالا سون بوروم جيفي مبولم كومسا جهاد في يونو ak mboolem ku mës a jaamu yàlla xalima yim doon bindee rek la wax mi ngi ko waxee ci xasida bi ñu wax faxat faaza faxat faaza mu ne faaxat ladallaahi axlaami lati xadama amala man jahadu wa kullu man abada segem xasida ye taxaw taxawaay yooyu kon segem xalima yee taxaw taxawaay yooyu xasida yi kon nan lañ war a mel bớt đi bu daa ji nga xam ne moom la doon bindee nag bu dee daa ji nga xam ne la doon bindee sun borom def ko def mu taxaw taxawaayu saxaaba ya àndoon ak yonent bi di xare doon xare dereeti saxaaba yi maanaam dereeti saxaaba yi saxaaba yi àndoon na yonent bi sallallahu alayhi di jihaad ci yoonu yàlla ba ñu rey leen xasida yi dafa taxaw taxaw seen deret yooyu mooy li sëriñ bi wax ne maa u midaadi kadima suhada fi xazawatin man bi fa fawzi shahida ñooñu nga xam ne nag ñooy shuhada yooyu ñi nga xam ne ñoo doon jihaad ci yoonu yàlla àndoon ak yonente bi ba faatu ci jihaad ñooñu ku xam na ne bu ñu faatoo jarut ñu leen di sang jarut ñu leen di suul jarut ñu leen di jullee dañuy def direct ci aljanna nga xam ne fas fas yañu doon war di ci jihaad xam ngeen ne fas bu dawee ba sonn euh, dangay faral di gis léeg-léeg am na ci yoo xam ne gémmiñ yi dañuy génne ay furit euh, saxaaba yooyu nag fas yañ daan woor di ci joxaat furit ya daan génne ci seen gémmiñu fas ya soo ko peesewe ak jëfi wàlli yu furite gémmiñu fas yooyu day gën a diis jëfu wàlli yu kamal bi kon ñoom jëmmi saxaaba yi seen daraja kenn xamul ni mu toll sëriñ bi nag su fekkee wax na ne daa ji moo taxaw taxawaayu dereti saxaaba ya dereti shuhadaa ya kon loolu day wane ne xasida yi moom seeni màggaay moom kenn xamul ni mu toll mu wax na it xasida yi suñ boroom defal na ko ko ba mu taxaw taxawaayu xare badar nga xam ne su fekkee yaa ngi jàng xasida xasida sëñ Tuubaa di ko sellal yaa ngi am tiyaaba yi ña doon xare badar sëñ bi dafa wax ne maddaliya siral masuuna man jaal atiya misla yawmi badrin fan jaal del wax ni damma kitaabati li yawmi badri jaaxilu ahlihi lizaamul xadri kon mbokk yi xasida yaa ngi noonu nañ nañ ci gën a góorgóorlu ci di leen jang bu baax bah, baax baax baax di len selal di gor lu baax ci selal bi ndax njëriñ li kat tënkuwul ci jang gu bari gi waye mu ngi aju ci yene ji ak selal bi ci la njëriñ li nekk ki nga xam ne saa bu xëyee mën naa jël génn xasida jàng ko téeméer te du ci yéene dara du ko sellal kooku du yem ak ki nga xam ne saa bu xëyee day jël génn xasida doonte ñetti bayit la wala benn jàng ko waaye jàng ko yéene ci am ngërëmul yàlla yéene ce jaamu yàlla boole ko sellal kon njëriñ bi tënkuwut rek ci guddaayu xasida walla jàng gi lu bëri nag am na solo lool waaye nay ànd ak yéene di ànd ak sellal ndax innamal amalu binniyaat fexe itam bay warmaal xasida yi ñu di leen warmaal di leen teg ci ay barab yoo xam ne barab yu barab sell la ndax sëriñ bi dafa waxoon ne sama mbind fi ngeen ko gis na ngeen ko teral fu ngeen gis sama xasida yi na ngeen ko teral dafa waxoon ne alimtumul xaqa falazimuhu wa in taraw xatti fa akrimuhu kon sëñ bi moo digle ci ñuy teral xasida teral xasida nag mooy jox ko àqam jox ko wàccuwaayam jox ko worma ji nga xam ne moom la yelloo ndax ku ne xam ne sëriñ bi léppam la yàlla barkeel léppam la yàlla màggal léppam la yàlla warmal muy faral di wax ne suñ boroom kat ni mu tànnee yonente yépp jël ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk gën gi yonent xayrul mursal naka noonu la tànnee euh, sëriñ bi mu nekk ngeen gi wàlliyu xayrul awliyaa yi maanaam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee xayrul mursal ngeen gi yonente noonu la Sëriñ Tuubaa nekkee ngeen gi wàlliyu yi niti suñu boroom yi ginaaw yonente yi bu ñu jàllee sëriñ bi moo ci am loo xam ne kenn amu ko kenn mësu koo am te kenn dootu ko am ci ñëpp ñu fi mës a jaar nag doon liggéeyal yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye ni nga xamante ni it noonu la alquranul karim faw xawee ni mu gën a kawewee mboolem téere yu yu mos a wàcc ci ay yonent noonu la xasida yi gën a kawewee mboolem téere yi nga xam ne ay nitu yàlla ñoo ko bind maanaam lu dul alquran ak xadis rek xasida moo la gën a kawe loolu nag waxi sëñ bila la moo ne wa faaxat gayra qurani wal xadisi kon loolu day wane màggaayu xasida moo tax may faral di wax ne xasida yi day yar xel di sellal xolub murit te day rocci say ñawteef nga far yor melo tuuba xasida yi day yar xel di sellal xolub murit te day rocci say ñawteef nga far yor melo tuuba dalay tëbb ay xam-xam nga ciy dégge ay xikam te day yéege sabru it ci ruuxuk sëriñ tuuba ku koy jàng tey sellal melow mag ña jiitu woo la lay sóob nga doon tànneef wu am cër ca sëñ Tuuba te day wamatit sag sag leer te day wamatit sag ci leeru Muhammadu te loolu lépp yaa ngi am ci barkeb te day wamatit sag ruux ci leeru Muhammadu te loolu lépp yaa ngi koy am ci leerug sëriñ Tuuba ci kaw nag ki koy naselal, na buir, xolam bu wër te koy jang ngir yalla yonen bek serigne touba khassida yi meññet la mu jebbe ci bir xolam bu len rax lu kon bu len rax lu bokkul kon ci mbindum serigne touba khassida yi meññet la mu jebbe ci bir xolam bu len rax lu bokkul kon ci mbindum serigne touba lu ñuy dégg foofu mooy xasida yi bayit bu njëkk bi xasida yi day yar xel day yar doomu aadama bi jubal am xelam def ko mu nekk boroom xel mu leer boroom xel mu set wa bi kitaabatiya rabbi rabbi kulla mutaalixin li wajhi rabbi wa bi tawalifi anir sudura man wa bi tawalifi anir xuluba man yaltamisuna al ilma fi kulli zaman wasrax bi xati sadra man taallama wasrax biha sudura man taallamu sarxan bihi la taqtarihim zulamu kon xasida moom lu la ci defar xelu doomu aadama su ko defee it bayit bii mu ko mujjee bu leen rax lu bokkul kon ci mbindum Serigne Touba loolu ku ne war na ci bàyyi xel bu baax a baax baax mbokki kon su ko defee ñoo ngi yemandi fii jotaay bi di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi doon teewlu euh, ñu tuddaale ñii ñu fekk ci bunt bi ak ñi nga xam ne jotuñoo def ay écriture ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax sëriñ Xaadim Guèye fële ca diwaanu Thiès sëriñ Ismaïla Ngom fële diwaanu Louga sëriñ Maam Biram njaay fële ca Kaolack sëriñ Mas Guèye Daara fii ci tuuba sëriñ Xaadim Bamba fa fële ca diwaanu Ndakaaru sëriñ Cheikh Sall fële ca diwaanu Thiès suñu leen tuddee dañu yóbbaale mbooleem ñu doon teew jotaay bi ñëpp di yàlla mu defal ñu dégg topp lépp lu ngeen ci dégg mu wuuteeg xam-xam na ngeen ñu ko jéggal te xam ne doomu aadama moo bindoo noonu ak sunu gàtt àll waaye lépp lu ci jub ci ndimbalul yalla la ak ci tawfiq ñu ngi sant wa daayira sifa usudur bu baax te ñaan suñu borom mu nangul ñu liggey bi ci barke Serigne Touba Cheikh Ahmadou Ban khadim rasoul bi nga xamne mo wax suñu borom subhanahu wa taala ne ko yow yalla na ngay faj aajo yi ñi nga xamne dañuy sax ci mai liggeyal na nga len may seen waqdi xawaaij allazina daamu fi xidmati wahab lahum maaraamu rax ci dolli wax ne ñi nga xam ne dañuy gaaw ci di ma liggéeyal man Serigne Touba ëllëg sun boroom subhaanahu wa taala dana leen fay ay kër dana leen fay ay kër ca aljanna ina allazina saarahu fi xidmati falahumu diyaaru wastal jannati waaye jan yan ca digg aljanna ca digg aljanna la leen si la suñ boroom di defal ay kër ñi nga xam ne ñoo doon liggéey sëñ bi te ku ne xam na ne daayir si faaw si dóor guddeeg bëccëg subaak ngoon seen lépp dañ ko fab jébbal sëriñ bi sax ci di ko liggéeyal di ñaan yàlla mu nangul nu liggéey bi day rafet njort lool nag ndax sëriñ bi dafa waxoon ne ixraajuhu إلى بلاد نائية ونال فيها فوق سمع سارية génne guñ ko génne woon yóbbu woon ko ci dëkk yu sori ya yóbbu woon ko ci réewu tubaab yi suñ boroom defal na ko ci dégg-dégg boo xam ne moo gën a kawe dégg-dégg bu saxaaba bu saariya amoon ndax saariya benn saxaaba woon boo xam ne dafa mës nekk fu ñuy wax faris mën naa am jamono ji mooy Iran suma jumul waaye Seydina Omar nekk Madina ci jàkka ji da xutba ki nekk Iran ki nekk Madina Seydina Omar di waxak ak boobu di saar yi nga xamante ne ma nga ca Faris xoolal diggante réew ak réew kii ne ci xut ci jumaa ji di xutba di wax ak ka nekk fële ka kooka di ko dégg kon Sëñ Tuubaa su waxee ne yàlla may na ko dégg gu kawe dégg gu saare yi amul ñaan yi ñuy ñaan yépp rafet na njort bu wér na Sëñ Tuubaa dégg na ko te am na ko te danañu ko defal ci kàttanu suñ borom incha allah ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf